wa ida taamalnaaha ndeem seetantal nanu leen fil qismi ca xaaj ba al aymani bay ndeyjoor waxadahoo moom rek xay suhiya fa nga xamee ne ñoom nootun ay naat lañu xaqiqiyat ñu ko jug dëgg-dëgg wajat naaha nu fekk leen fawqamaa ci kaw li nga xam ne taqaddama jiitu na tumaa ci lu ñu yemonteeg mat boo xaa la ñu topp mooy la ñu naat fii ifraadihi ci ak wéetalam waaw bu ñu ko defee mufrad wa tasniyatihi akuk tasniyaam wa jamihi akuk jamhoom wa fi tadkirihi ak ci ak góoralam wa taanisihi akuk jigéenalam amaatul xismi daal ci xaaj ba nag al aysari bay càmmooñ xay suhiya fa nga xamee ne ñoom nootun ay naat lañu sababi yët ñu ko ju sabab fa innahaa naka ñoom turaa def na leen gis mufradatan ñu nekk rek mufrad suwaan wa yemoo la akaana ndax nekk na mat boo xuhaa lañu topp mufradan di mufrad am musannan mbaa muy luñ tasniya am jamhan wala muy jamhu wa turaa def na leen gis ay don ba tey mutaabiqatan ñi aji dëppoonteeg mutaabiqatan limaa ñeel la nga xam ne baadaha nekk na seen gannaaw fii tadkirihi ci ak góoralam wa ta'nis yi ak jigéenalam fa in kaana dem nekk na maa la nga xam ne baadaha nekk na seen gannaaw muzakkaran di lu ñu góoral kaanat kon ñu nekk mislahoo di am kemam wa in kaana dem nekk na mu ànnasan di luñ jigéenal kaanat ñu nekk ñoom naa di kazalika naka noonee ba tey wala atibaara déet genn xalam lil man xooti di ñeel man xoot ma fii daalika ci loolee aslan ci cosaan mu ne nag soo xoolaatee naat yi ci ndeyjoor rek fa nga xamee ne da nga ne naat bu ca ne xaqiqi yu la da nga gis ne lu bokkute juróomi ya nga wax topp na ca muy rafaa nasab ak jar ak maharifa ak nakira boo tegee juróomi yee ne da nga gis ne bu dee ci ndeyjoor naat ba day topp man xoot ma ci yeneen juróom nga boole ko juróom yooyu muy fukk ndax bu dee fii ci ndeyjoor muy naat bi xàq si moom day topp juróom ya nga weesoon ba noppi ba noppi nag topp ko ci bu dee mufrat muy mufrat buy tasniya muy tasniya buy jam muy jam topp ko itam ci bu dee góor muy góor bu dee jigéen muy jigéen kon na ngay wax naati xaqiqi dana topp man xootam ci ñeenti pas-pas yoo xam boo ko feccee muy fukk nga daal di wax ihraab yet rafa nasab xafad tur yaar maarifa nakkira lim yet ifraat tasniya jamu mbir yaar tazkira taanis su ko defee nag naati sama bii moom juróom ya nga waxoon képp ca lay topp moom man xoot ma waaye lu bokk te loola ci wàllug ifraat tasniya jamu ak ci wàllug tazkira taanis moom naat sawa bi du ci topp man xoot ma waaw moom fokk fekk dañ ko war a bàyyi muy mufrat kenn du ko tasniya kenn du ko jamu te itam ci wàllu góor a jigéen da ngay xool la mu rafaa ci kanamam ñu ne mooy faaxilam mbaa muy naayibam su loolu nekkee góor baat bi nekk naat bul ca def màndargam jigéen nga koy bàyyi mu dëppoo moom di góor ni moom su loolu nekkee jigéen nag nga def ca màndargam jigéen loolu moo tax suurataani bii nekk man xoot moom jigéen la waaye jamilun ji defoo ci màndargam jigéen dangaa xool la ca kanamam mooy itaarahuma itaar bi muzakkar la jamil ba tey daal nekk muzakkar ni moom boo ñëwee ci nag banaatun xaaxilatun ummahaatuhunna soo seetloo banaatun ji moom jamxu la waaye xaaxilatun taxul nga jamxu ko dangaa seet nga ni ummahaatu bii mu rafaa ci kanamam muy faaxilam jigéen la moo tax nga def fii taa nga wax xaaqilatun doo wax rek xaaqilun yem ci nga ci boole taa muy xaaqilatun boo xoolee bi ci topp moosiran topp na ixwaanan ci nakkira topp ko ci ihraab bi muy nasab gi waaye ixwaanan jamxu la waaye waxoo moosirina di ko jamxu déedéet da nga koy bàyyi muy mufrat ndegam nag li mu rafaa ci kanamam muy faaxilam góor la kon doo ci def màndargam jigéen kon takk-takk mooy ngay wax naat sawa bii moom dana topp man xoot ma rek ci juróom ya nga weesoon muy yetti anami ihraab yi rafa nasab jar ak ci maarifa ak nakkire waaye ci wàllu ifraat tasni jamhu mbaa tadkir te anis moom du ca topp mukk man xoot ma alqawaidu an naatu naat bi naw xëy ci ñaari xeetam ya yat baamu dana topp man xoo taxoo la mu naatam mooy la muy melal fi rafihi ci rafaam nga wa nasbihi ak nasabam nga wa jarrihi ak jaram nga wa fi taarifihi ak ci ak mahrifaalam wa tankiirihi ak nakkiraalam da ngay njëkk a wax ne naat moom moo xam xaqiqi yu la moo xam sabab yu la faaw mu topp man xoot ma ci juróom yi moom ihraab yet muy rafaa nasab xafad baa nga ne jar ak maarifa ak nakira nga tekki ne an naatu naatu alxaqiqi yu buy xaqiqi yat baa dana topp man xoo taxoo la muy melal fawqamaa ci kaw la nga xam ne taqaddama jiitu woon na fi ifraadihi ci ak defam mufrad wa tasniyati akuk tasniyaam wa jamhi akuk jamhoom wa fi tadkirihi ak ci ak góoralam wa ta'nisi akuk jigéenalam da nga cey teg ne bu naat ba nekkee xaqiqi yu nga xam ne ka moom naat ja muy man xoot ma ca dëgg-dëgg moo melawoo melawa kon naat ba day topp man xoot ma ci juróom yi booleeg juróom yi nga weesu woon mooy da koy topp ci ifraat tasniya jamhu ak góor ak jigéen ak nag juróom yaa nga weesu woon te ñoom ñëpp cay topp la ñuy naat an naatu naat as sababi yu buy sababi yu yàkkoon dana nekk mufradan di mufrad wayu raaxaata defi sàmmoonte fii tadkiirihi ci góoralam wa ta'niis yi akuk jigéenalam maa la nga xam ne baadahoo nekk na ci gannaawam an naatu as sababi yu ci wàllu ndax da nga koy def mufrad am tasniya mbaa jamu da ngay dogg ne foo ko fekk dañ koy bàyyi muy mufrat kenn du ko tasniya kenn du ko jamu bu dee nag ci wàllu góoru jigéen nga ne moom kenn du xool la mu naat dañuy xool la mu rafaa ci kanamam rek muy faaxilam mbaa muy naayib bu loolu doonee góor nga def naat muy góor maanaam bañ caa def màndargam jigéen bu loolu dee jigéen nag nga def ci naat jitam màndargam jigéen an naatu naat xëy na yekkoonu ci waxtu dana nekk jumla tan di jumla naat mën naa doon jumla bu ko nekkee nag moom lay wax kon luy mbir ma bu njëkkee al amsilatu xaaza lii xamalun jëf la naafihun ji di aj jëriñ manees na ne xaaza lii xamalun jëf la yan pax mu joj dana jëriñ abu sartu gis naa rajulan waay saabihan ji di aji feey man nga ne abu sartu gis naa rajulan waay yasbaxu joj dana feey joj dana feey nadartu xool naa ila safinatin jëm ci ak gaal ghaariqatin guddi aji lab man nga ne nazartu xool naa ila safinatin jëm ci ak gaal taghraqu kook dana lab mada yooy na yowmun ab bis shadidul xarri buy aji tar aw tàngaay man nga ne mada yooy na yowmun ab bis xarruhu bopp tàngaayam wa shadidun aji tar la aw xattu taal naa misbaaxan ab làmp xawiyan nuuri buy aji foor ak leer man nga ne aw xattu taal naa misbaaxan ab làmp nuuru foo bopp leeram nga xawiyun aji foor la lu am doole la nasiyu du dananu napp jën fii birkatin ci ab déeg wala ci taataawu ndox kasirati samaki buy aji bari ay jën man ngaa wax nag nasiidu dananu napp jën fii birkatin ci ab déeg wala ci ab taataawu ndox sama kuhaa bopp jënam ya kathirun aji bari lañu albaxta nag kon moo ci topp alkalimaatu baat yi naafihun te mooy naafihun wa saabihan wa gaariqatin ak gaariqa ak wa shadidul xarri ak wa qawiyan nuuri ak wa kathirati samaki dafa net li baat yi moo tax bu ci ne mu maas ko lam maas ca boo ko dee xool ca bañ ko indi ca misaal ya nga tax bi mu defee naafewun fee mu wax saabihan fee mu wax ngaariqati ndax noonu lañ ñëwee ca misaal ya fii am silatul xismi ci misaali xaaj ba al awali ba jëkk kulluhaa mboole seen noxootun ay naat lañu lil asmaa yi ñeel lisim ya allati ya nga xam ne qablaha nekk na seenu njëkk wa ida taamalta boo seetantalee al jumala jumla ya al axirata yi aju mujj fi am silatul xismi ci misaal xaaj ba azzaani ba aj ñaareel waxee te ñoom mooy yanfa'u wa yasbahu wa taghraqu wa harruhu shadidun ak harruhu shadidun ak wa nuruhu qawiyun ak wa samakuha kathirun wa jattaha nga fekk leen tu addi ñuy joox al mahna mahna ma ëllësi ma nga xam ne addat fu joox na ko an na ootu naat ya al mufradatu yadi ñu def mufrad fil qismi ci xaaj ba al awali ba jëkk fa yee ñoom isan kon nu ootun ay naat lañu lil asmaa ñeel lisim ya qablaha ci seenu njëkk boo dee xool misaal yi ci wetu ndeyjoor da nga gis ne naafihun naat la ci amalun saabihan naat la ci rajulan gaariqatin naat la ci safinatin ba tey shadidul xarri naat la ci yawmun qawiyan nuuri naat la ci misbaahan kathirati samaki naat la ci fii birkatin loolu ci nay joor la mu ne nag boo xooloon ci càmmooñ da nga gis ne dañoo andi foofa ay jumla ni ki yanfahu ak yasbahu ak taxraqu yooyu moom jumlay fi'al lañu xarruhu shadidun nuuruhu qawiyun samakuha kasir ñoom jumlay lisim lañu mu ne nag boo seetloo baat yee nekkoon naat te ay benn benn baat maxnaa ma ñuy joxe rek moom la jumla yi joxe na baat yee doone woon ku ci nekk di benn ba noppi wax melowoo baat ba la jiitu mel ba tey kat jumla yi noonu lañ mel daal nañuy xamle baat ba leen jiitu nañu mel nga xam ni daal ni naafihun wane xamalun noonu la yanfahu wane xamalun ni saabihan wane rajulan noonu la yasbahu waxe melaw rajulan ni gaariqatin wane li gaal gi def mooy lab ba tey taxraqu mi nga xam ne jumlay mu daarihu la noonu la wane safinatin ba yépp nag àgg na wabil baax si ca gëstu ga fil asmaa yi ca lisim ya allati ya nga xam ne qabla haadihil jumali nekk na njëkk yi la jumla naraaha dana nu leen gis mbaa taraaha da nga leen gis jamihan boole seen nakiraat ñu nekk ay nakira nakiraatin jumla yi nga wax ne la benn baat ba daan joxe ci njëriñ ba doon naat ñoom jumla yooyu ba tey noonu lañu def mu ne nag seet lu baax a baax ne jumla yi nga ne naat lañu foo leen fekk baat ba leen jiitu day doon nakira yi nga weesu yépp wax ne jumla ya naat la foo fekk baat ba jiitu jumla ja rek dafa nekk nakira boo delloo ci ba ci jëkk jëkk yan faxu nga waxoon te amalu njëkk jiitu nakira la yasbaxu ba tey rajula njëkk jiitu nakira la taxaraqu ba tey safinat njëkk jiitu nakira la yépp nag boo ko dee xool jumla bu ne rek la ko jiitu nakira la wa ida tadakkarta ndeem fàttaliku nga maa la nga xam ne marra romb na bi ko ak yow wala bi ko ci yow rek fii baabil xaali ci buntub xaal wa tadabbarta te nga seetantal al amtilata misaal ya allati ya nga xam ne taqaddamat jiitu woon nañu hunaaka foofee xalimta nga xam ne anal xaala naka xaal kama takkoonu naka muy nekke mufradatan di mufrad ba tey tàkkoonu dana nekk jumlatan di jumla aydan ba tey walakin saaxibaha waaye boroomam laa yakkoonu du nekk illaa maarifatan dara di maarifa wa bi haza ci lii nag yazharu lay feeña lakka ñeel la alfaraxu teqale ga bayna jumlati naati diggante jumlab naat ba wa jumlati xaali ak jumlab xaal ba fal ula bu jëkk ba takkoon day nekk baada nakiraatu ci gannaaw nakira ya wa taaniyatu ñaareel bi takkoon day nekk baadal maxaarif ci gannaaw maxaarifa ya mais nag jàngoon nga buntub xaal boo ci delluwaatee di ko xool da nga gis ne gisal nga fa ay jumla ñu wax ne jumla yi ca foofa ay xaal lañu nga xam ne kon wax nañ foofa ne ni benn baat mën a nekk xaal ba tey jumla yi lum mën naa nekk xaal waaye dañoo waxoon ne jumla ji balaa doon xaal day topp lu nekk maarifa kon nag da nga daal gis ne moog fii wuute nañu jumla bi nekk naar fii da nga wax ne moom faaw day topp nakira te boo delloo ci foofu gis ne jumla bay nekk xaal moom faaw day topp maarifa kon yaar jumla yooyu muy jumla bi nekk naat ak bi nekk xaal daañu yomb xàmmee kee day topp nakira faaw kee topp maarifa faaw alqaidatu aljumalu jumla ya baada nakiraat ci gannaaw nakira ya sifaatun ay naat lañu wa baada almahaarifi ci gannaaw mahaarifa ya axwaalun ay xaal lañu kon takk-takk baa ngoog jumla bu toppee nakira te cay doon naat bu toppee maarifa nag doon ca xaal yow ci at tamrin al awwal mayis ràññeelal an naata naat ba al xaqiqiya min assababi fi l ibarati al atiyati na nga ràññeel ci lee ngay séen muy wax bi bëgg a dikk ban naat moo ci nekk xaqiqi ak ban moo ci nekk sababi alqahiratu Caire mooy capitalu misra madinatun ab dëkk la azimatun bi aji rëy tudaarixu boobu dana nuróonteeg katiran lu bari minal muduni ci wiil yi mooy ci dëkk yi al europiyat yi ko jug Europe fi jamaaliha ci ab rafetaayam wa rawnaqiha akub taaram wa qad saada dolliku na sukkaanuha ay abitaam fil ayaami ci bis yi al axirati aji mujj siyaadatan ak yokku azimatan gi aji rëy wa fiiha te nekk na ci moom kathirun lu bari min al mayaadini ci ay boulevard al waasihati yu di aji yaatu wal xadaaiq ak i jardin al gannaa yu aji sëq nee na keer dëkk la bu rëy rëy boo xam ne boo ko dee seet daa mel ne dëkki Europe yu mag ya mag ca nañu rafete ak nañu taaroo te sax jamono yu mujj moom ña dëkk ca keer dañoo yokk lool lool gën a bari lool lool boo duggee ci biir keer yi da nga gis ay boulevard yu baree bari ak jardin yu saq yu naata naat wa ida tufta ndeem wër nga fi anha iha ci ay wàllam wajatta nga fekk xusooran ay pale caami xan yu di aji yëkkatiku bunyaanuha seen tabax wa masajida ak i jàkka xaaliyatan yu di aji yëkkatiku xibaabuha seeni xubba wa ahyaan ak ay quartier muttasihatan yu aji yaatu shawaarihuha seeni rii wa jatta te nga fekk masaaniha ay isin wa mataajira ak i jaayukaay wa amalan ak liggéey wa xumaalan ak liggéeykat te ne boo dee warilu nag ci weti dëkk bi da nga gis ay pale yoo xam ne seen tabax day kawe lool gis ay jàkk yoo xam ne seeni xubba day kawe lool gis ay quartier yoo xam ne seeni mbedd day yaatu lool da nga gis tam ay usine ak ay jaayukaay ak ay liggéeykat ak lañuy liggéeye wa fi kulli sitaan ci bépp faslu sita yan saxu dana as mooy dana ñëw rek ilayha jëm ci moom keer as suyaahu touriste yi al moosiroona ña di way woomal minal aqtaar yi bàyyi ko ci pays ya al xaalisi ya di aji tar barduha seen sedd fa yuqiimoona te ñi sax maashao la ñu bëgg mooy la ñu soob taxta sama iha ci ron asamaanam si assaafi si aji sell addiimuha déndam bi wa yatamattaona te ñuy bànneexoo bi hawa iha ci eeram bi al mu'tadili bi aji modéré mooy bi aji yemoo al jamili bi aji rafet buñ tolloo ci jamono sedd touriste yu bare bari xam ne jekku nañu am am dañuy bàyyikoo ci ay pays pays ci àdduna bi fekk fa ñuy bàyyikoo moom sedd ba day metti ñu ñëw nag keer man fee noppalu ndax day fekk buñ dee xool keer mu asamaan set wecc air bi yem rek du ëpp du yées ko defee ñu nekk fi noppalu nag lañu bëgg door a delluwaat at tamrin attaani ayin ràññeelal maa la nga xam ne fil jumali al aatiyati min an nu'ati wal axbaari wal axwaal jumla yu bëgg a dikk am na ci ay jumla yoo xam ne jumla yi naat lañu am na ci yoo xam ne jumlay xabar lañu am na ci yoo xam ne jumlay xaal lañu bëgg na nga ràññeel leen laata sur bul wisité mooy bul nemmiku ahadan kenn wa samaaw te mbir moom asamaan si moom tiratun aji taw la xataa laata duxula ba doo dugg alihi ci moom mu ballala tiyaa bi mbir mu ngay kuñu tooyal ay yére mu lawatal xisaa yi tey luñu taqal ay dàll fa inna zalika naka loolee xaybun sikk la kabirun suy aji rëy nee na bu asamaan si dee taw bul dem di seeti kenn di ko nemmiku ndax booy àgg da nga yóbbaale yére yu tooy ak dàll yu taq-taq te loolu sikk la boo xoolee nag wa samaawu mumtiratun boobu jumla boobu jumlay xaal la al imaamu ilimaan ba alxaadilu bay aji maandu kal abi mi ngi mel ne ki bàyyi alxaani bay aji yërëm xalaa wul dihi ci ay doomam yaawoluhum dana leen njaboote sixaaran mbir mu ñu ay gone wayul siduhum te mu leen di jubal kibaaran mbir mu ñu ay mag ilimaan bu maandu day bari yërmande ci nit ñi ni waajur di mel ci ay doomam xam nga waajur day toppatoo njaboot ga bañ dee ay gone di leen dundale ko woddu ñu demee ba ay mag itam tax mu bàyyi leen te leen di teete di leen wan fañ war a aw ilimaan maan noonu lay mel day yërëm gone yi taxawu mag ña al burtuqaalu orange faakihatun furu wi la labibun bu di aji neex taamuhaa jafkaam tayibatun bu di aji teey raihatuhaa xetam wax wate moom min faakihati chita yi mi ngi bokk ci furu yi sedd ak tawilatil baqaa yi aji yàgg ak des orange la ne furu wi bu neex cafka la bu neex xet la moom nag daa bokk ci furu yi am ci jamonoy sedd te mën a yàgg loolu te duñu yàqu al amaakinu béréb ya alhaadiatu ya di aji dal xayrun ñoo gën li sukkanaa ngir dëkke minal amaakine ci béréb ya al mamloo ati ya duñu feesal bil jalabati ci coow wat daw baay ak am riir maanaam béréb yi nga xam ne ñoo kalma def tekk rek bañ a bari ab yëngu toog coow dëkk fa moo gën dëkk ci béréb bi nga xam ne day bari ay yëngu toog coow at tamrin at taalit da fi kulli makaanin xaalin naatan munaasiban maanaam béréb bu dara nekkul bu ne da nga seet naat bu fa yàlla nga teg ko fa buñ ne alxawaawu air da nga cee teg mun hisun aji dundalaat la wala aji dekkal la lil aji saam ñen yaram ya ngay def alxawaawu ak talxu wala alxawaawu almu'tadilu wala alxawaawu aljamilu ci nekk rek baax na moom day dundalaat day dundalaat yaram ak aklu lekk ga nga teg foofu ab baat muy naat nga door caa teg yut ximu dana fërloo almaidata bàq ga ngay wax al aklu al mufritu ngay aji ëpp wala al aklu al kathiru lu ci wax baax na almaa u ndox ma ngay teg foofu naat doo cee teg moo verun aji lor la shurbuhu ak naanam dikk nga ne almaaw alwasixu ndox mu salte wala almaaw alkadiru modirun shurbu nga xool ci des nag def ko ak tabib médecin seetal loo ci teg tool caa dolli yasiidu dana dolli almarida aji tawat ja saqaman jàngoro man nga ne ak tabibu alqaasi docteur boo xool da yokk malaat bi jàngoro almanaziru xoolukaay ya mel ni nga ne albadihatu wala aljamilatu tashrahu danañu ubbi an nufoosa bakkan ya al ashjaaru garab ya mel ni nga ne alwaari fatu wala almoori xatu ya aji sëq tu dallilu danañu keral danañu keral almarrata way romb ña yasiqu dana dëgërlu annaasu nit ñi bittaajiri mel ni nga ne bittaajiri al amini commerçant bu jub bu ñu wóolu alxawaawu air ba nga ca teg albaaridu air bu sedd bi yu tabbitu day gàllankoor alquwa force ya muy doole ya kàttan ya albadaniyata yi ko jug yaram alxisaawu dàll wa mel ni alxisaawu ab dayiq ab dayiqu yaduru dana lor alqadamu ndëggu la laa taakul bu lekk at taxaamu ñam wa nga seet baat boo ci teg niki alxaara way aji tàng yu sarru def na dégloo al abaa waajur ya bil abnaayi ca doom ya men nga ne bil abnaayi al barrina wala bil abnaayi al mujtahidin al axlaamu drapeau ya niki al axlaamu assawdaawu te dullu danañu tegtale xal husni ci njàqare man nga itam al axlaamu drapeau ya al munakkasatu ya duñ jat jat drapeau yi daañ koy def buñ dee dëj ñoom waa nguur yi tubaab yeeg ñu roy ci ñoom laa taskun bul dëkkee al amaakine béréb ya seetal naat boo dolli foofu tu karni mu dana teral ak shuhubu giir yi muy peuple yi rijaalaha ay góoram nga seet baat boo teg foofu at tamrin arrabia ba fi kulli makaanin min al amaakini al xaaliyati man ootan man oot munaasiban mu di aji yàlla fee nga weesoon moom da nga fa doon teg naat fii nag moom man xoot nga fi teg bala nga andi albasiloona ñedi way ñeme laa yaxaaboona duñu ragal alxar ba xare ba da ngay andi baat albasiloon door caa topp mel ne arrijaalu albasiloona addahabu rus bala nga andi nafisun da ngay def addahabu maadinun am mbell la nafisun mi aji foor wala nga ne xajarun aw doj la nafisun alkasiru mu di aji bari yutux yi day bewloo saaxibaxoo boroomam man nga ne almaalu alkasiru yutux yi saaxibaxoo alxaribatu yi aji ràpp ma wal boomi mooy nekkukaayu looy yi ngay wax al amaakinu alxaribatu ma wal boomi al zumurudu zumurut karimun aji tedd la axbarut aji wert la ngay def azumurut xajarun karimun axbar zaharat feeñ na fi samaay ci asamaan si an ngaa def xuyumun ay niis ay niir wala suhubun kasifatun yu aji fat habat upp na an ngaa def riyaaxun ay ngelaw iqtalaxat yooyu buddi nañu al asjaara garab ya ngay def riyaaxun bu nakkire nag mooy tax iqtalaxat jumla ji mën cee naat istaratu jënd naa ki farasan aw fas jaamexan muy aji maam nasala mina samaa yi wàcc na bàyyi ko ci asamaan matarun xasirun taw bu bari asadiqu rajulun mahbubun xam ne rajulun ji moom man xoot lay doon su boobaa mahbubu mooy nekk naat ji التمرين التمرين الخامس كون جملا تكون يدنا نك فيها تي نيوم الاوصاف ملوي الاتيه يدي اجي ديك نوتان دي اي نات تي بغ اندي اي بار يو خامني dañuy melal dara mu bëgg nag kenn ku ci ne nga andi ko ci biir wax bu daanu tam doon ca naat andi na ci nag baatub tawilun aji gudd ak karimatun aji tedd tibaaxuhu ay jikkoom ak baasiqatun aji gudd furooxuha ay bànqaasam ak saxiyun aji tabe ak kathirun aji bari maaluhu alalam saadiqun aji dëggal mu athirun aji jeexiital kalaamuhu waxam niki hada qatidun muathirun kalaamuhu shujaahun aji jàmbaare nadifatun ku di aji set malaabisuhu ay yéreem xasanun ku di aji rafet hindaamuhu jekku taxawaayam mahibun ku di ku ñu wekk mushriqatun ku di aji leer saatihun ku di aji jolli nuuruhu leeram nga xaalikun ku di aji kukk zalaamuhu lëndamam nga aaliyaatun yu di way yëkkatiku mbaa yu di way kawe at tamrin assadis kawin jumalan takunu fiha al awsaafu al aatiyatu nootan sababiyatan dafa bëgg nag baadi mi lay bëgg andil nga def leen naat ku ci ne nga def ko ci biir wax bu daanu boo xam ne baat bu mu tëndoon ci ñoom day nekk foofa naat ci biir jumla ba mu nekk ba noppi nekk sababu yu bee nga weesoon moom dafa jaxasoo woon amoon na sababu yu amoon na xaqiiqi yu daa bëgg ne yëpp moom nga def leen ku ci ne muy naat sababu yu ci jumla ja nga ko dugal xaaqilun aji xellu mutalaliun aji melxati shaahiqun aji yëkkatiku jamilun aji rafet waasiun aji yaatu mudnibun aji bakkaaru almusaafiru kadi aji tukki al ghaibu kadi aji fàddu al muhsinu kadi aji rafetal al faqiru kadi aji ñàkk at tamrin السابع حول والبتل في جمل أي جملة مفيدة الأوصاف نادية